di jar waaye dafa indi nagam bi ñëw wàcce price bi pour doomi aadama yëpp mun a enjoy ci weeri koor bi di ñaax tamit boucher yi balance yi nit ñi dañ ko dee jooy de dañ ko dee jooy bu baax a baax a baax a suñ nee weeri jot na ñuy yokk wàññi seen balance yi suñ la waree jaay wan kilo ñu jaay la tricota te nit ku nekk dangaa ñaan yàlla loo liggéey yàlla fay la ko te ci weeri koor weeri yërmande la nañ leen dugal yërmande si suñu biir nga am dalasi mu lew la moo gën nga am dundi bu la lewut ndax yaayaa jame ku ne gis na ne mu ngi dimbale baax doo lay weeri koor bi jotee su wàññee price bi foo dem ci place jaaykaay yi dafa fees dell nga dem euh, BCC bintu ko li mu fa nga dem Ibo Town Faat Fay mu fa nga ñëw Serekunda yaa ngi am Binta Ndiaye nga ñëw euh, Bouva zone nga ñëw fii naka lañ ko waxcee abuko Bartes yaa ngi am euh, Fat Dieng abuko yaa ngi am beneen Fat Dieng nga dem Latrikunda yiri nga ñe nga am fa ñilaan nga ñëw kóotu ay chamaane nga ñëw baak baakoote fish market yaa ngi fa am Fat Jiba loolu yëpp ci ndimbali président Jammeh mu ngi wàññi price bi kon ñun ñi nga xamante ne ñun ñooy jaaykat yi ne lañ wàññil jëndkat yi ndax ñu mun a am lu ñu yóbbul seen njaboot yi njaay neex na trop xaalis neex na waaye nag nañ dugal yërmande suñ dugalee yërmande di nga gis baadoola bi dina mun a enjoy moog doomam yi waaye bu fekkente ne yow yaa ngi am dépense yi hundred dalasi nga war a dem marché jënd kilo yàpp one hundred and fifty dalasi mhm. kon xam nga ne ki am dépense yi hundred dalasi du lekk yàpp de du ko mën a kon nan lañ dugal yërmande si suñ biir president jame dañu amuñu luñ ko wax ndax su wéri koor joté dina wañi mburu dina wañi diwlin dina wañi yap be so ñué fo dem place bo xamantene fi kan lay Family Farm moko ko rek di gis nit ñang koy ram kon businessman yi ak business moyen yi nañ leen dugal yërmande si suñ biir wañi ndax ñu mëna am yërmande wéri koor bu juliti rek ngay gis juliti di son waye christian duñ dé sonu parce que dafay fekk ñoom suñ weeri koor bi passé na ñoom ñu ngi or seen or ñoom lu ñu am la ñoo dund ko te ñoom bañ nañ ko seen weeri koor bu jotee dañ dee wàññi seen dépense buñ daan lekk téeméer juróom fukk la ñuy lekk waaye ñun jullit yi boo daan lekk téeméer di nga lijjanti ñaar téeméer ak juróom fukk pour bëgg sa njaboot ci mun a lekk-lekk bu baax man lu ma am pour wax mooy ñu nañ dugal yërmande ci suñu biir wàññi price bi ñu ngi dugg si weeri koor commencé nañ ko ci bisimilahi rahmaani yàlla nañ ko mottali ci alhamdulilahi rabbil alamin bépp jaamu yalla buñ ci def yalla nañu ko yalla dangul ci Muhammad salaam jërëjëf ñu ngi sante ñep tay gërëm ñep ñu ngi sante président Jammeh ndax yaaya Jammeh lu ñu defal ñun ñep gis nañ ko wër ko su jotaan dañay caalit way fokk na amna wër ko koor boo man mi sama waxal na wër ko bi naka la mo yaaya ñew defal ñu kilo yapp juroom fukk bi bu nekk ñu jënd ñaari kilo ku nekk ak de ñu del waxa wër ko Sakho man maay Fatou Sakho man maay kaltu la Fatou Sakho jabar Babou Gueye <laughs> tamit ni mu dellu indiwaat diwlin bi yombalal ñu ko su sukkur bi ñëwee itam daf ñu koo jox ñuy suukaree bon yaakaar naa su fekkee ne doomu aadama yëpp dañ ñu jàppalante comme ni yaay jaame jàppale ni kon dëkk bi na neex waaye yaakaar naa ñi ngi sant Babou Gueye Sonko mii ndax baabu Gueye ndaw loo xam ne ndaw lu dëgg la te dëggu la dinaa ko wax ndax Babou Gueye day jàppale ñëpp te bëggu kenn sonn yaakaar naa ne bu xamee ku mel ni moom moom itam dañ kontaan ñu ngi gërëm ko Coly muy loolu mayor KMC moom itam ku jar a jàppale la ku jar a gërëm la njaay nag dafa am yoon yaakaar naa suñ ko tegee ci yoon rek du sonn waaye nag njaay moo des a tegu ci yoon ndax jaaykat bi kuy jaay price bu kuy jaay ci kaw ñoom ñooy sonal jaaykat yu ndaw yu ndaw yi su jaaykat yi mag yi wàññee wax naa foog naa ne njaabi dina yomb ñun de ay jaakar lañ comme nu baabu ngay waxee ne yaay am jaakar la dëgg la ñun ñëpp ñooy tase ci marché de jaay waaye njaay mi da ngaa gis na bala ma bala maa sonn sax damaa dégg bi ñaata la ñu ne CFA bi dafa yokk may leen ah CFA bi moom. ma ne CFA bi marchandise bi Gambie ak CFA lan moo ko mën a yokk marchandise bi soo gisee loolu businessman yi. yu bëri yu mag yi dëkkun fi su fekkee businessman yu mag yi fi leen dëkk ni kon duñ sonna waaye ñoom ñi ngay xalaat ne suñ jaayee marchandise bu ñu daan jaayee seetu ci ci weccet bi de pour lu ñoo yónnee pour dépense bi dafaa bëri foofu ci loolu ndee seet bu njëkk dañ daa wax tailleur yi waaye tailleur yi bu nga xam tailleur yi nga xam ne gambiyel li seen ñëw yi ñu ngi wàññeeku du bokk ak ñu nga xam ne nekkul fi parce que ñu ngi seet seen dépense bi fii ak dépense bu nga xam ne mu nga nekk Sénégal bon ñun waa Gambie yi ñun jog jàppalante ak suñu njaboot bi te ñu jéem a wàññi njaay bi naka la moo demee jaakati naa ko yi xam ne ne naa ko dafa métti pour roose waaye ñu rek ci yàlla rek xam ne njaay bu barke moo gën njaay bu nga xam ne barke woo soo jaayee junni te barke woo nga jaayee dara si te mu barke moo ëpp njëriñ ñun jaaykat yi ñu dimbalante te yërmante jërëjëf jërëjëf moo moo feŋo beebul han naa tay feŋo la yaa dooku isaa tala hani min ka koowaaf mbee ŋa tala pour ala naa bagaso min ka do kujan wala fa kolat han bagaso min ka banan tibabu du ntanga wala je gambia ja hani sisel min fa nga do kunna suko ne mo mo nyin ka sisel bi asa foi dal se keme fulan ba fula wol nta fa nga ja asiyata hani na marse dawo yele parce que mo ka fula ko ninga nyin san ada du so mbita fen da ser lu ngol san ngana wala ko ya greetings Mungedem. Happy Ramadan to the president and the family and the cabinet. luñ fi njeri ñi ñëpp Luta mane njeri ñi ñëpp la jullit danga war a am yërëmande te weeri koor weeri yërëmande la soo lu tax nit yi di ekkati seen prices li pour bugg too much haram annihilation la de si destruction di nga am nga ba pare nga jékki-jékki ñàkka lu tax pare mënuñoo émuler président mu ngee génnee ay nag di ko joxee su ko joxee ñu ko jox tamit ñu tamit nañ am yërmande ñu moo jox duwlin yi ñu moo jox sukkur yi ñu moo jox nag yi bot soo buggee moo profit dafa noo yow vision yi président xamuloo ko da nit yu nga xam ne yàlla may na leen tamit war nañoo ut àllaaxira te weer bi weeri àllaaxira la pour nga jégalu da pare ut barke si yàlla su nit amut lum lekka nga jox ko lan la jàngakat yee dee wax de soo nañ leen bàyyi xel te kontaan naa si yéen te seen programme bi yal na si yàlla dina def barke yéen a ngi ee nit yi pour nit yi xam vision ni président am yërëmande pour Gambia yëpp nekkut opposition nekkut euh, euh, APRC lii pour Gambian si yëpp la nit danga nga war a am yërëmande soo amee yërëmande rek alhamdulilah rabil alamin bot soo amut yërëmande danga nga war a laaj sa boppam yow ban façon yi nit nga ndax àdduna rek nga bugga àdduna day jeex de ak lum yaaga yaaga jërëjëf jërëjëf fu mu nekk nii euh, waxtu bi jeex na tak tak tak waatoo bantale euh, xanaa rek euh, di tàggatoo honorable Babou Gueye si lu gàtt rek nu mu gàtt gàtt honorable nu a leeral ba bu Sarr ak gars yi am na lu ñu ci wax wax na bul dama bëgg a indi benn firnde nit ñi bàyyi ko xel soo leen bàyyi xel 2010 président indi na fi diwlin bu bëri diwlin bi yëpp suma loxo ko loxo la ko tegoon jamono googu balaa diwlin gi ñëw gaa ngay jaayee poti diwlin 11 dalasi waaye bu président indee diwlin bi ñu jokkoon ndaw yi ñu tasaare diwlin bi ñun tam ñu jaay dëgër bu bopp dañoo seet maa nga ci foo xam ne maa nga ci bu ma nga fa nekk ñu ngi faa jaay diwlin ma def fa ubbi fa outlet ñu tasaare ko Greater Banjul area balaa ngaa ne one week. ñaata ngeen doon jaayee COP. ñun ñu ngi jaayee COP five dalasi PCM bu ko kenn jaayee lu COP five dalasi balaa ngaa ne one week Sidi Mali diwlini président ñu doon jaayee seen pot si gënoon a seet seven dalasi la woon te di seen diwlin la président Jammeh indi na ay nag yu bëri nit ñi dañ day jënd nag jamono bu moo indi nagam yi ñu ngi jaayee kilo yàppa si biir marché bi hundred and thirty five dalasi president ini mu def yàppa ah, eh, ya bi ya, 50 dollars yi stick bi 65. New ñu mantam ñu jaay dëgër boppa di jël ndaw yi di leen poos nga xam ne fa la nekka balaa one week buuse bu si gënoon a seer eighty dollars ñu papa ñaa ngi nii ñoom wàccee nañ ko Nini dafa ndiroo ni en ah, honorable si gàttal nit ñi lu ñoo seeral ni marchandise ñoo ko dee ñu ngee ñaan nit ñi nañ am yërmande président bi mënut a def yëpp waaye even légumes yi sax dugal na fa loxoom laa su weeri kosto leen bàyyi kañ lay faam stores yu fi am yëpp ñu ngee jaay légume te lu ñoo jaay ak ñu ne lu ñoo jaay utee nañ te dafa tax ñeneen di wàññi ngir yàlla si weeri lañ nekka nañ leen wàññi sukkur gi nekkul atu problème léegi si weeri koor nit ñëpp xam nañ ne julaay xam nañ ne weeri koor su jëlee président dafa indi sukkur bopp si réew mi soo seem sukkur du ñoo jar moo tax léegi dañoo ceeñ ah